ñuy ñaan président Madické nga gestu askan wi askan wi nag li nga xam ne mooy seen jafe-jafe bari na. la mas naqadi si nit soo ñëwee mu faju tàllal naa la sama loxo Mbàkke naka bi kàddu bi jibee rek soxna Mame Faty doon leeral ni kat moom dafa bàyyi APR bi mu sonnoon yàgg ci loolu te nag kenn fulaalu ko jigéenu APR yi ku si mel ni soxna Mariama Ndiaye ma Mbacké ne kat nag loolu moom lu ñuy xoolaat la ndaxte soxna si kenn mësu koo xàmmee si parti bii di APR ndaxte nag moom mi ngi fi ay élection yu bare fekk naka fi ba mu waral muy laajte soxna si fu mu doon milité. bu ma gisee responsable boo xam ko ci terrain ñu xamuñu ko biir APR xamuñu ko biir coalition bi xamuñu ko ci wàllu formation xamuñu ko ci wàllu développement xamuñu ko ci wàllu politique parce que élection yi bu jub lu ne nga koy gis mais ñun suñu bopp ñoo war a am suñu fulla ak suñu fayda ñu ñuy liggéey président Macky Sall suñu base bi ñu nekk am na loo xam ne président du ko tontu du ko wax talu ko ñu ñii fi nekk ñun ñoo koy défendre man kenn mbusumaa dégg ci polémique du ma amul damay liggéey rek mais nag du ñu nekk liggéey ba heure bi ay nit bëgg koo yàq naa dañoo nekkoon fii dañoo mer dem fii kenn meru fi dañ nii ay nit ñoo jóge ci yeneen parti di ñëw PDS amatul opposition gis ngeen jeunes yi ma de décroché barki démb gis ngeen soxna Ndioba Mbacke ñëw na honorable député Aïda Gueye ñëw na euh, Aji sekk ñëw na Mame Thioro ñëw na Mati jaane ñëw na ay jama saw ñëw nañu maam Xarim Mbacke euh, euh, sang boobu barki démb la ñëw fii non seulement dafa ñëw mais dafa ànd ak dooleem ñëw diñu jàppale si kon ñu an opposition bi au niveau de Touba soog ñëw na Pape Niass ñëw na et cetera et cetera kon ana opposition bi fii ana waa PDS maire bu Fouta la jigéenu APR bi def nekkit femme de développement ni dara réeru ko si biir parti bi donte sax nag moom yàggu si waaye nag mu ni duñu nangu kenn diaboliser leen ndax nag seen parti bi ma nga ca yoon wa te nag ñoom ñoo ngi liggéey ngir suuxat ko te kenn jógewul si ñoom plus de 3000 femmes yoo xam ne leen a formé ay jeunes yi ñu formé loolu le président wax le DG euh, Dame Diop defe ko moom nekk la formation professionnelle ci ndigalu Mamadou Talla son ministre kon ñun ñu ngi liggéey Ndeye Saly Diop Dieng barki démb la fi jóge def ay financement yu dul jeex DER baa ngi fi financement yaa ngi fi mais formé nañu jeunes yi formé nañu femmes yi ñu ngi liggéey président yaru na jox na cër kilifa diine yi gis nga li mu def ci kër à travers euh, euh, le Sénégal li mu ci këru diine yi ah gis nga ko li mu def ci jeunes yi gis nga ko li mu def ci femmes yi mais duñ nangu kenn yàqal ñu. madame Mbacké lancé appel si ñooñam yi ne nag ñu conserver ak yi ñu am ndax nag jàpp na ni seen leader président Macky Sall am na ay jéego yu mu def si Touba li koy faj mooy sunu sukkandikoo si moom feesal ko. ndax man mosoo maa gis yu mel nii man damay liggéey sama liggéey ci communiqué mais mosoo maa gis yu mel mais trop c'est trop il faut nag ñun leader yi ñu génn di wax am na loo xam ne président mënu ko premier ministre mënu ko yenn ministre mënu ñu ñu nekk ci base bi ñu ñoo war a téye suñu base. communication dafa am solo mais lépp tamit nañu ko def ci kaw yar ak teggi ñu paree dem investir suñu président au niveau euh, euh, national ànd ak euh, responsable région national bi soxna Ndeye Marème Badiane investir femme benn bokk yaakaar la président Macky Sall ñu fexe nag ba mu gañee dès le premier tour am deuxième mandat mais surtout le département de Mbacké ñu liggéey ko ba mu gagné kaddu yi mi ngi ko jibal ginnaaw bi benn soxna jóge yëkkati kaddu wane ni si ñoom la bokkoon waaye tey jii dafa rejoindre ma Madické Niang